kuréel bu ëmb ay organisation yu nekk ca biti réew ak fii ci euh, Sénégal yoo xam ne li leen tax a jóg mooy aar liberté de la presse ñoo daal di bind ab bataaxal jébal ko njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye ngir euh, sàkku ci moom mu daal di jox priorité ci aar liberté des médias fexe ñu jot ci information waaye tamit sécurité journaliste yi ñoom ñu bokk ci réseau mondial bu UPI boobee ne dañoo daal di am tiit ak njàkkare ci attaques yi nga xam ne ñu ngi koy def ci kaw journalisme ci Sénégal rawatina ñetti at yu weesu ci noonee ñu am yaakaar ci njiitum réew mi mu dal di aar ba noppi nag dal di artu liberté média yi dal di delloowaat réew mi position bu am solo bi mu am ci liberté de la presse ak ci démocratie article 19 reporters sans frontières ak yeneen i kuréel dal di nañu ñaax nguur gu bees gi mu dal di jël ay mesure ngir dal di défendre liberté des médias yooyu ak liberté d'expression bu ko defee mu gën a ñoŋal nekkinu journaliste yi fii ci Sénégal loolee dafay laaj buñ sukkandikoo ci ñoom ñi ñu dal di ñaawlu fépp menace ak attaques yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kaw journalistes yi amal ay enquêtes yu xóot ci attaques yooyee waaye tamit fexe ba ñi nga xam ne ñoo koy def ñu teg leen ay daan ci noonee tamit réewu Sénégal war naa indi ay coppite ci loi yi nga xam ne dafay tënk liberté de la presse ak liberté d'expression lu ci mel ni code de la presse ak code pénal bi dafay soxal tamit ñu dal di garantir journalistes yi di am information ci ay xew-xew yoo xam ne intérêt public la am lu ci mel ni ay manifestation wala ni ñuy amalee ay élection fexe ba ñuy jotandi ci internet ak plateforme médias sociaux yi saa su nekk rawatina bu ñu amee ay jafe-jafe moo xam civil wala politique war nañu tamit indi ay coppite ngir soppi xar kanamu média état yi bu ko defee ñoom itam ñu mën a am responsabilité ci kanamu public bi di joxe tamit ay xibaar yoo xam ne intérêt public moo koy lal yooyu le mesures nag dina doon doon message bu am solo boo xam ne dafay biral ne réewu di aar liberté des média ak fexe ba journalistes yi am sécurité loolee dina baax ci way taskatu xibaar yi waaye dina gën a ñoŋal wàllu démocratie bu Sénégal fexe ba tamit ñu amal benn citoyenneté bu gën a informé waaye tam bu gën a dogu